متسع بعين بالنظر وسمع الأذن بالخبر صلى الله عليه وعلى آل طيبين طاهرين وعلى صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بكجلتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا أبو سنتي يالا دي دولي سنتي يالا بباح دي سنتي يالا بيغا خاميني سي باحا يا مكاتنم لن يواتي دي ديف واتاني اجوما دي ندوكالي سي دي لين ندوكالي سي بس بو ماغا بي bés bu foor bi ajuma wii nekk mujjanteeli ajuma si weeri koor bi mbokk julliti yàlla si baaxaayam ak yërmandeem weeri koor bi ñu ngi ko commencé woon si ajuma amaan na tamit nañ ko jeexal ba si ajuma maasha allah alhamdulillah alhamdulillah démba si guddi ñu bari jóg nañ dundal guddi bi amaan na démba si guddi nekkal guddi leetu qadri ndi guddi bi lim guddi ajuma bi nga xam ne sallam wax na si xadis kasiru aksiru salaatu alayya yowmul jumaa wa leylatu jumaa fa inna salaatukum maadut alayya nga xam ne loolu xéewal bu mag la woon mbokk jullit yi déma ci guddi naafila nañ jàng nañ alquran ñaan nañ waaye yàlla na ko yàlla nangu macha macha allah daal moom daal alhamdulilah la wax yàlla lu mu defati si jaam bi moo gën si ñun weeri koor bi am nañ juróomi ajuma tey di ajuma daanaka bu mujjee si ajuma si weeri koor bi ñu ñaan yàlla subhana taala nag liñ si jaamu yépp yàlla ñu ko yàlla nangul yàlla nañ ko fekkee ajuma yu bëree baree baree baree bëri yu ànd ak ak wér waaye tamit mu nekk ajuma yu tombeeg wéeri koor yu baree baree baree bëri si kattani yàlla ak yërmandeem yàlla ñu ko yàlla defal mbokk jullit yi bon lii sant yàlla la ñaani yi ba léegi si bési ajuma ji passé wut ngoonal ajuma mu ngee ñëw diggante taakusaan ak timis bu leen ko fàtte mbokk jullit yi waxtu nangu ñaan la yow sala sallam mu ne am na si boo xam ne lu si waay ñaan yàlla subhanahu wa taala na ko nangu bon waxtu boobu buñ demee ba balaa ñoo ndogu bu desee half an hour fanweeri minute nañ toog ak njaboot bi ku nekk tàllal loxo di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu tuub jégalu bari istixfaar ñaan yàlla subhanahu wa muccal ñu si feebar bi daxal ñu feebar bi teggi ko si kaw suuf yàlla mun na ko si mbaaxayam yàlla ñu ko yàlla defal mbokk jullit yi bon mbokk jullit waxtaane tey bi ñu ngi waxtaane si li nga xam ne mooy julli korite julli korite sunna la sunna mu akkada la maanaam sunna bu dëgër la boo xamee ne dafa war jullit bu góor ak jullit bu jigéen mag ak ndaw ñépp la war pour dem julee ko màggal ko muy feet bi nga xamee ne moom la yàlla subhaana taala jox si at bi muy korite ak tobaski ñaari feet yi lañ am bon nag dañ ko war a màggal dañ ko war a fonka dañ ko war a fooral te yéen salaa mu ne yàlla subhaana taala di ko ne qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fa mu ne texe na ki nga xamee ne not na bakkinam waaye nag sir kaw jaamu yàlla waaye nag mu fàttaliku yàlla di julli ñu ne mooy julli leen korite wala julli toboski muy ñaari rakka boo xamee ne eh, sunna mu akkada la jullit yi yépp la war ñu def ko mu ne ban waxtu la mu ne suba suñ demee ba gis ne jant baa ngi génn si mu ne si jamono jooju lañoo julli li nga xam ne mooy julli iid ñaari julli iid am muy tëbaski ak korite tëbaski ñu ne dañ ko war a julli teel parce que bési tëbaski bi nit ñi dañoo oor pour buñ reyee seen tëbaski ñu mun seen ndogoo waaye julli korite ñu ne dañ ko taaxiir tuuti dañ ko def mu leet tuuti ndik bés boobu kenn warta oor bés boobu ñëpp war a xëy leeka mooy sunna bi ku nekk su xëyee dafa war a lekka waaw e, muy li nga xam ne yém sa salam wax nañu ko mu ne lan lañ soppa si bés boobu bési korité lañ lañ si bugg a bokk julli lañ lañ si soppa al xuslu wa moo ne sangu ba set sol laal parfum las koloñ bu neex waaye tamit ak libaas sol yëre yi gën a rafet yëre yi nga xam ne moo gën a rafet sax walis bés boobu nga sol leen maanaam sanse waaw sol yu rafet waaw li qawli nabi salaa sallam an nalbisa ajwad ma najid wa natayab min ajwadi ma najid comme ni ko salaa sallam waxee mu ne nañ sol yu gën a rafet si suñu yére yi waaye tamit nañ uti laskoloñ yu gën a neex si laskoloñ yi ñu laal ko bési julli ba mooy ne bés la boo xamee ne bési baanee la bési kontaante la bés la boo xamee ne ñëpp si war a kontaan macha allah ba nag iidul fitri mu ngi ni di ñoo mbokk jullit yi muy li nga xam ne mooy korite yàlla def ren ñu ne suñ biir kër yi la ñoo julee yàlla def ne biir kër yi julee mooy sallu fii rihaabikum sallu fii buyutikum si jamono yonent bi salaa sallam mos naa xew taw bu rëy am yonent bi alayhi salaatu salaam dal di wax bilaal ne noodal boo demee fi nga ne hayya ala salaa waxal ni ñu ne sallu fii buyutikum sallu fi rihaabikum ee eh, julli leen seen biir kër yi julli leen seen biir néeg yi bon nag loolu taw moo taxoon yonent bi sallam joxe ndigal nit ñi julli julli farata seen biir kër yi am na jamono tamit ñu ne seede bu métti am sallallahu alayhi sallam tamit dali joxe waat ndigal pour nit ñi julli seen biir kër yi bon nag bii tamit e jàngoro boo am mbas la boo xam ne dafay wàlle te nit ñi su mun nañu leen a wàlla te yàlla subhaana taala dafa ne inna allaha kaana bikum rahima man dama am yërmaande si yéen si yéen bu nag yërmaande boobu yàlla wàcce suñ kaw dañ ko war a mootali suñ biir ñu ni neen tamit mooy ne ku nekk tamit na julli këram xam ne lii lañu yàlla dogal pour di siya mu nekk xéewal bu réer réer yi tamit ñu julli suñ kër yi loo xam ne suñ koo def ñu julli korite suñ biir kër yi léegi am naka lañ koo defee mbokku jullit naka la ñoo jullee julli korite si suñ biir kër yi salaatul iidul fitri fii bu buyuutinaa naka lañ ko julee suñ biir kër yi ndik si sunna mooy ne julli korite wala julli tabaski si biti lañ ko dee julee ida dañoo dem si bayaal bu yaatu wala si jumaa bu mag ñu julee ko fa loolu mooy sunna bi waaye ren nag mënuñu am loolu parce que covid 19 bi mooñu ñu tere loolu jàngoro bi mooñu ko tere bon nag liñ am moo ñu julli suñu biir kër yi bis la boo xamee ne ñëpp a war a ndokala ku nekka ndokaleen sa borom ne ko taqabbalallahu minna wa minkum yàlla ñu yàlla nangu suñ jëf yu baax yi yàlla ñu yàlla nangu suñ koor yi ñu ko fekki at yu bare bari bari ñaanalante te dimbalante si bés boobu mu ne ko am na bés boobu tamit nit ñi war a ñoo mun a lekk suur waaw xale yi mun na leen a bégal xale yi fo xale yi fo war a kontaan si bés boobu muy fo yi nga xam ne fo bu dagan la waaye li gën a bari suñ mbir mooy ne bu ñoo julli tabaski wala korite guddi boobu ay musique fecca góor ak jigéen yoo xam ne islaam daf ko xaraamal jógee si tiyaabu bi soobu ñu dem si bàkkaar maanaam ki nga xam ne naka lañ ko mën a mun axee mooy ki sangu ba set sol yu yu weex tal macha allah ba ñëpp ne na mu jékki-jékki rek gis fa potopoto ba nekk rek dem dugal boppam si potopoto boobu nga xam ne yéreem yëpp dal di yaaxu mooy ki nga xam ne jóge na si weeri koor alhamdulillah yàlla nangul na ko jaamu yàllam waaye mu a déedéet xaaral ma dem caaxaani léegi nag naka la ñoo defee julli korite suñ biir kër yi mbokk julliti famille bu nekk war a julli si biir këram ñaata raka ak ñaata takbiir la ñaari raka la ñaari raka la raka bu njëkk bi gannaaw takbiratul ihram bu ñu takbiratul ihram mooy allahu akbar bi nga ubbee waaw mooy ne allahu akbar bi nga ubbee moo ne allahu akbar boobu mooy benn nga commencé def allahu akbar ñaar allahu akbar ñetta allahu akbar ñeneent allahu akbar juróom allahu akbar juróom benn allahu akbar juróom ñaar mujjee waaw mujjee ihram bi mooy bi nga ubbee ak jërë ak yeneen juróom benni kaabar boobu nga commencé si raka bu njëkk bi nga dal di jàng faatihatul kitaab muy alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex bu jeexe soppa nañ nga jàng suratul ala mooy sabbisma rabbikal ala moobu si raka raka bu eh, eh, raka bu njëkk bi la nga jànga sabbi isma rabbikal aala raka ñaareel bi booy jóg bay kaabar tamit boobu juróomi kaabar la plus sa kaabar bu njëkk bi muy kaabar bi ngay joge boo ne allahu akbar yaa ngi jóg taxaw nga dal di kaabaraat allahu akbar allahu akbar allahu akbar muy juróomi yoon lii mooy sifa mooy naka lañoo jullee korite suñ biir kër yi su ko defee ñaari rakka bi nga jànga faatiha tamit jànga suratu xaashiya muy xalataaka adil xaashiya boo ko mokkalee boo ko mokkalut nga jànga wa duhaa boo ko mokkalut nga jànga wa shamsi wa duhaaha lii yëpp mun nga ko jànga suratu duhaa suratu suratu shamsi tamit mun nga ko jànga lii mooy julli bi nga xamee ne moom lañ war a def suñ biir kër yi waaw parce que amuñ jamaa mbooloo boo xam ne imaam dina ñëw jiite xutba bon nag li war borom kër bu nekk mu jiite waa këram raka bu njëkk bi juróom-ñaari takbir la takbir mooy allahu akbar seven takbir la bu paree si seven takbir wi mu jàng faatihatul kitaab bu mokkalee sa bisma rabbikal aala mu jàng ko bu ko kar sura bu mu jàng baax ne faqra'u ma tayassara min alquran bon janga lu yomba si alquran raka ñaarel bi boy signi allahu akbar gana bobu nga defat juromi takbir gana takbir bi ngay joge ñu bàyyi si hel takbir bi ngay gana bobu da ngay defat juromi takbir su ko defé nga jàngaat fatiha gana fatiha nga jàng sar boo mun nga comme ni ko waxe rek ataqadul wala suratu eh, suratu shamsi wa shamsu duhaha wala suratu duha saar boo mun jàng ko saar boo mun nga jàng ko bon nag incha allahu ñu ñëpp nii lañ fas yéene pour julee ko si suñ biir kër yi ñaari rakala la du ko paase su ko defee ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu li amati yàlla ñu ñëpp ñuy dajee sa béréb ba njaan julee ñëpp dajee fa julli ba pare ñu ngi fàttali suñ mbokk yi tamit mbokk ti ba léegi muudum koor bi muudum koor bi muudum koor bi génne leen ko balaa ngeen a julli seen kër yi ku ko génnewut ah amuloo muudum koor amuloo muudum koor de nañ ko génne balaa ñoo julli ji mbokk julliti fii ba ëllëg nañ ko génnee nañ génne seen muudum koor yi yonent bi alayhi salaam mu ne dundal la ñoo dundee si dëkka loolu lañ war a génnee léegi nag jamono fa dem ba nit ñi di génne xaalis bon nag ki ko génnee war na koo génne balaa moo julli waaw ki war a toog ba ay twelve o'clock one o'clock mu ne ba faate boobu nekkaatut mu dem koor boobu sarax la si sarax yi bon nag nañ góorgóorlu ñu génne ko balaa ñu julli ji si jamono yonent bi salaa sallam Osman bun Affan dal na ko Osman borom alal la woon Osman nekka ñetteeli xalifa yonent bi salaa sallam faatee génnee li nga xam ne mooy muudum koor ba julliji ji bi ñëw waaye mu dem ndeysaan génne alal bu bare bare bare lu mot fukki jaam gorel leen ne bàyyi na gorel leen fii sabilillah e ba mu demee wax ko yéen sallam mun ne soo ko doon def at bi yëpp sax lu tax mu mot zakatul fitri muy modum koor allahu akbar bon nag ñu war see bàyyi xel mbokk jullit yi xam ne lii jaamu yàlla la dañ ko war a génne ak nu mun a teele ndax ñu mun ko jox ñi nga xam ne ñoo ñoo ko moom ñoo ko disaab ndax ñooy tamit bés boobu ñu mun a kontaan di bés la boo xamee ne ñëpp si war a kontaan comme ni ko sallallahu alayhi wa waxee bon nag ñuy ndokale suñ boppa di leen ndokal once again di leen wax ne wa kullu aamin wa antum tayiboon taqabbalallahu minna wa minkum saali amal am na benn vidéo wala audio buy dem on ne Saudi Arabia ne confirm nañ ne julli bi dimanche la subhanallah gis nga lii yàlla subhanahu wa taala mu ne in jaakumul fasiqu bi nabain fa tabayyanu gis nga façon yooyu ku ko jot bu ko yoonee Saudi Arabia juleeguñ timis ba war a confirm ne eh, juli et dimanche la nii dañ war a bàyyi seen xel am na ñoo xam ne dañ day yàkkamti pour bu ne maa ko jikaa yoonee nañ bàyyi li nga xam ne du dëgga loolu du dëgga islam dafa nekk dina boobu dina dëgga la boo joxee xibaar na nga joxe xibaar bu wér bul yaakamti boko julit bi lan nga yakam ba yore lo xam ne la hein fa la Saudi Arabia wa hena kom famene julit bi dimas la amut amut ken ko lolu amut Saudi Arabia tey si gudi bu julé timis betti na clock si ñom wala ba eleven na clock ñu ngi déglu ban ka ci biir region Saudi ban area ñom ñoo gis wër bi suñ ko gisut si lañu di ramane ah gisuñ wër bi de nañ ko motali fan weeri fan mu nekk dimas waaye léegi am na ñu yoone eh, audio di wane waaw Saudi comme fa subhanallah mbokka bi bàyyi leen xel bàyyi leen xel diine kenn du ko foyantoo diine du ko du ko ne du ne maa ko ñu kaa wax wala maa ko ñu kaa yoonee nga si am lan la si amal su fekkee ne ku dëgga ah yow xaaral bi am information bu leer buñ yaakamte buñ jaxasee nit ñi social media bi am na ñoo xam ne dañ koo jëfandikoo pour jaxasee nit ñi dañ ko jëfandikoo pour jaxasoo nit ñi yonent bi salaa sallam mu ne ki gën a bon si nit ki mooy ki joxe xibaar boo xam ne lu dëgga moo gën a yées si doomi aadama yi bi ko saf yaakamti lan nga yaakamti eh fi mu ne ñun su nekkee three o'clock Saudi Arabia mu nga five o'clock ñu nga door a julli tàkkusaan bon nag naka la ñoo yore message boo xam ne ne Saudi ñoo wax ne julli bi dimanche la loolu amut moo ko julliti waxuma ne julli bi nekkul dimanche waaye sawdi waxaguñ loolu sawdi tey si guddi buñ julee timis ba fi balaa ñu julli gée ñoom am nañ tiim yoo xam ne dañoo responsable dara defu seen liggéey ñu ngay liggéeyal hayatul amr bil maaruf ñooñu seen liggéey mooy ñu pour ñi nga xam ne ñooy seen affaire eh, naka islam bi seen ministre eh, naka tuwaat di religion ñooñu am nañ tiim yoo xam ne ñoom seen warugar nañ ko def ba moom sikk balaa ñu annonce ne weer bi feeñe wala feeñut ñoom fekk am nañ seen matuwaay yu ñu def sikk ba gis ne ida gis nañ ko ñu annonce ne gis nañ ko buñ ko gisut nañ wax ne nañ mottali te xadis bi dafa leer yonent bi salaa sallam mu ne suumu li ruyatihi waftiru li ruyatihi fa in umma aleykum fa akmilu shahra salaasuun wallahi dafa yomba nañ bàyyi werante bi nañ bàyyi jaxase nit ñi salaa sallam mu ne nañ or buñ ko gisee weer bi feeñi axakañ weññete yi ëllëg ñu or mu ne nañ ori buñ ko gisee bu buñ ko gisul nag nañ mootali weeri sëriñ tati dees weeri sëriñ yom sala mu ne ashahru hakada mu ne ida mu nekk 29 wala mu nekk taati 29 wala taati mooy weeri sëriñ du ko passé mukk duñ am tati wan wala 28 amut si weeri sëriñ bon nag nañ bàyyi joxe xibaar yoo xam ne wérut suma mbokk yi nañ leen bàyyi xibaar yu wérut yi le ah sawdi fan lañ waxee loolu indi ñu dalil indi ñu firnde luy wane loolu loolu amut sawdi duñ dee def noonu sawdi affaire yi weer bi dañ si strict strict boo xam ne dañ ko amal team ñu ko amal groupe yoo xam ne loolu mooy bokk na seen liggéey ñu nemmeeku weer bi kañ la moo génn ak kañ la moo delluwaat parce que ñu ko beesi hadis bi Yonent salaam mu ne suumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa innum alaykum fa akmilu shahra aw waaw bu feeñee or leen bu feeñu tamit ori leen boo leen ko gisulee nag mootali leen weeri koor bi fan weeri fan bon nag ñi wane saw di dimaas weeri dimanche ko fen nañ xaar ba tey mun naa dimas, dimanche loolu weddi wu ko waaye buñ tuumaal wax ne sawadi ko fekk sawadi waxu ko sawadi waxaguñ dara si affaire wer bi tey si guddi su timis bi balaa ñu julli gée nañ annonce wax nit ñi ne nangam saudi dafa rëy wala dëkk nangam Kuwait, Qatar deka yooyu yep mën nañu annonce ne gis nañ ko buñ ko gis tamit dañu annonce ne gisuñ ko su ko defee nag ñu mootali mbir yi samedi ñu oor ko lii la war a demee waaw so nag nañ bàyyi yoo yoonee xibaar yi nga xam ne duy wér ñu ko tasaare si suñ société bi bari na tool yaram yaa defal jaama allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallim wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin